mooy lu waay di woote dëkkaa nuru waaw léegi déglu ki ñëw naan li ngay woote nuru ko hmm. la question c'est au-delà moom nan la mel ki la kaa wax te moo jiite réew mi wala ñoom ñoo jiite réew mi ñi kaa wax ñépp hmm. ba nu kaa wax fekk nañu tot réew mi <laughs> wax ak dégg maanaam ñiy wax loolu ñépp du man rek waa déedéet déedéet waaye Thierno Thierno noppi xaw ma déglu nag xaw la saxatoo de. moom déglu mu animé du si moo gën. loolu si. kari kii yow kii. bokk si la waaw yow Thierno. Thierno dama toj bu xamee ne moom mu ci mboy. non non non c'est-à-dire kii euh, euh, c'est-à-dire important xam nga wax naa ko. pour man euh, surtout que tout à l'heure quand tu as 96 97. 97 la. 96 97. waaw ah moo nga wax année scolaire bi quoi. waaw 96 97 waaw. non parce que grève UNES après la grève UNES ci lañ créé suñu groupe de rap. te grève UNES boobu bokk na ci lu ñu gën a révolté ñu créer le groupe Kër gi. parce que dañu dem maanaam dañ ci investir à 200 pour cent étant jeune. Mhm. mais après trois mois de grève mhm. on a vendu le combat. dañ ko jaay man ak voilà ñu ngi fi ñu ngi fi ñu ngi fi man ak caat ñu toog ñu toog man ak caat ne plus jamais ça dootuñu nekk ay suiviste duñu jëlati ay nit jiital leen ñoo xamante ni xamuñu seen état d'esprit ak seen engagement seen honnêteté seen loyauté looloo ñu waral ñun mm-hmm. tey jii ñu créer le groupe kër gi donc déclic la quoi alors kon beaucoup de combats jaar nañ fi mais toujours dañ koy def humainement te pourtant ñi ko jaay jaar nañ fi am na ci kenn koo xamante ni c'était le meneur à Kaolack le leader mu ngi ci nguur gi il est maire lam def dama ko naqar lu ba tëdd ci ki mais tey dama ko tey dama ko jox cër parce que suma grand frère la sérieusement dama ko jox cër parce que suma grand frère la humainement ay Thierno Ba moom dafa tëjee <laughs> mais Ousmane Sonko waxuñu ni jaayuñu ni jaayuñu ni man duma am gel wala duma dem Sweet Beauté wala du ma non lim ñu jaay mooy réew la ñuy dénkaane mu ñëw ne ah man de bu fekkente ni réew mii ngeen di dénkaane li ngeen ciy bañ mooy luubal. man de yar nañ ma ba du ma luubal du ma sàcc seen du ma sàcc alal bu bu bokk réew mii ngeen di dénkaane su fekkente ni jikko yi maanaam mooy gore dëggu euh, euh, nation euh, patriotisme fexe ba li réew mi jot moom ci man de mangage pour loolu Ousmane sonk loolu la Sénégalais yi seq ak moom donc son truc de suite beauté pour man loolu bokk na tey jii ci li indi la l'animosité dans la l'espace politique parce que en 2011 euh, man ak maki sàll il nous arrivait ñu duggandoo ci suufu podiumu M23 wallahi lazim toog fa di waxtaan ay waxtaan yoo xamante ni c'est trop trop trop trop privé waaye ja waxtaanu jàmm ak salaam tamit quoi wax dëgg yàlla donc su ma gisee tey nit boobu nga xamante ni le sénégalais euh, le sénégalais euh, sénégalais bi dafa xeex joxe ñaqam joxe deretam on savait même pas qu'il allait être président on ignorait qui allait être président en 2011 2012 xam nga bi may bi fan yii yëpp bi l'événement Sonko amee lan moo tax je me suis fait rare dans les plateaux parce que dama toog jàng observer ànd ak naqar ànd ak tristesse ànd ak désolance and ak yu baree baree baree bari te li ko indi dafa bari ci ñu mu jóge en commençant par gis nga Thierno ak lu Sénégal ak lu loo àndut ak àndut ak Ousmane Sonko il ne mérite pas cette traitement sa place ne pas en prison parce que c'est quelqu'un boo xamante ni bi mu ñëwee au moins dafa changer xar kanamu politique bi wallaay lazim Afrique yëpp ubbi seen bët sénégalais yi commencé intéressé wu di xool la politique le jeu politique au Sénégal donc vraiment Ousmane Sonko devait être soutenu même par les gens de l'APR bërki démb dama ciy dégganteeg un ami pour wax la ni la rek man gëwuma animosité man adversité laa gëm Cheikh Bakhoum way c'est un frère mmh. on discute de tout c'est quelqu'un de très positif on discute de tout ñu ciy déggante ma ne ko Cheikh mu ne ma ah ma ne ko dissolution de parti politique dañ ma ko mus a nettali ma naqarlu ko ma ne jamono jooju bu ma fekkoon nan la ma dee nan la ma doon comporté woo heureusement ba fekkewu ma ko musuma xalaat ci suma àdduna ni dinaa toog ba Sénégal ñu fiy wala Afrique ñu fiy dissoudre un parti politique ma ne ko Macky Sall day dema ah. ma ne ko toi tu es jeune tu es dans l'arène tu es dans l'espace da ngay continuer sa carrière politique ma ne ko lii Macky Sall di def nii mu ne ma ah ma ko yat bi yéen lay dal suba. mais kilifa foofu mu nga may ma relance la. rajo ah, bi bisimilah xam nga bi commencé. Mhm. bi ñu jàppee Karim mhm. ma dégg Fadel Baro bu yaanaa maar. Mhm. mu ne on ne va jamais soutenir le combat de Karim Wade. te bu Macky Sall pare ci Karim Wade ñëw ci Khalifa rek ngeen war a xam ne am na fenn fu muy dal. waa xam nga lu tax période boobu. Fadel Baro ne on va pas soutenir le combat de Karim Wade. fi ñu doon waxee man. période boobu fi ma doon waxee mooy que ni dafa am ay nit yu ñu dénkoon pendant douze ans ñu dénk leen alalu réew mi dénk leen suñu armée dénk leen suñu lépp mais après une gestion mais ñooñu dañ leen a war a auditer dañ leen a war a auditer le temps d'audit nag dafa euh, dafa am temps période boobu sérieusement même ni ko Macky Sall defee le président de la République man ma ci parce que boo nee da ngay auditer quelqu'un comme Karim Wade bu def douze ans de pouvoir bàyyi ko ci mbedd mi nga def ko résidence surveillée wala nga def ko sous contrôle judiciaire di ko auditer ba gis la nga ko war a mën a inculper bu te bu dee da kiy tëdd kaso mu tëdd ci kaso mais bëxër ñett li Macky Sall di njëkk a def mooy dama lay dugal ci kaso bi en attendant musuma d'accord man ci pratique boobu mais par contre dénk naa Thierno Ah, ah liñ naan dénkaane bu amul saytu déjà fa déjà ñun fi ñuy faussé rek mooy bu ñu dénkaanee dañuy dem toog croiser le bras te le contrôle n'exclut pas la confiance ndénkaane bu amul saytu rek luubal ba dafay yomb prévention dafay yomb man tey jii nii le mot ŋàppaaral xam nga xam nga ci lan laa ko bëgg man dama ŋàppaaral ci Sénégal waaw Sénégal dama ci ŋàppaaral su ma la ko dénkee dama lay topp ni weteñ ah. dama lay topp ni weteñ ah fukki dërëm bi joxoon naa la ko de. ah doo rendre compte loo ci def. ah yow de bi ma lay jox fukki dërëm bi dama la ne woon sama priorité ci fukki dërëm bi lii la waaye man dama gis leneen. dama gis leneen. donc il faut que ñuy am culture di saytu. loolu c'est c'est c'est la ba tey ak li xew ci xalifa ak Karim li ñu koy li ñu leen li leen di waajal nii pour ñu bokk yooyu yëpp ba tey gisoo ci sa bopp. pour ñu bokk du ñu bokk la jàlloon ci assemblée nationale. du am non non non kaay ma wax la lenn nag moom moi je suis catégorique. mooy mënuloo ñëw ne ma pas Ousmane mii dafa sàcc sa xaalis bi. Hmm. te sàccum xaalis. pour man mooy li war mooy loolu kese moo war a mën a exclure un sénégalais ci jeu politique. Hmm. wala ci outil réew mi. ñun waxuñu ko ah Macky Sall le président de la république ak appareil état. ñoom ñoo taxaw ñu ne ñu Karim Wade mi ngeen fi dénkoon 2000 ba 2012. Mm. sàcc na seen xaalis moom moo ñu ko wax ñun waxuñu ko ñun dañ ne. Mm. bi ñu dénkee xalifa euh, Karim Wade ba pare yow yow mi ñëwaat pour ko saytul ñu ko parce que suñu xaalis bi ñun dañu jàpp ne am na lu ci manqué bi ko Macky sàll saytoo nañu effectivement seen xaalis bi am na lu ci manqué te loolee ca manqué Karim Wade mii moo ko sàcc ba mu jural ko li mu ko jural. Khalifa Sall kazalika ñu dénk ko Macky Sall ñëw ne Khalifa Sall mi ngeen dénkoon man mi nga xamante ni man maay saytu lépp lu ma maa kawe maa kawe ñëpp ka Khalifa Sall sàcc na seen xaalis jàpp ko tëj ko ci kaso bi tey jii nii wax dëgg yàlla ak yonente bi c'est de nous manquer de respect c'est de nous insulter nga xëyaat ne ñoo ñooñee sàccoon seen koppar yi ah man nii de man tundum dinaa fexe ci pouvoir bi nga xamante ni am naa ko te mu jóge ci yéen parce :fra que :fra dooley jën ndox la si aujourd'hui